day bëgg a wax nag mbindeef yi yàlla sàkk ni ñu toxtaloonte ci gënante mu ne ki gën ci lépp lépp lu yàlla sàkk mooy muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu jàllee sayiduna ibrahim alayhi salaam moo ca topp bu jàllee muusa alayhi salaam topp ca bu jàllee xiisa topp ca ci way yi dafa jiital noox waaye neen wax ji gën a wóor mooy xiisa mooy jiitu noox door ca topp kon bu xiisa jàllee nooxun alayhi salaam moo cay topp ñooñu nag ñoom la ñu wax ulul hasmi mina rusul ñi ëpp daraja ci yonante yi mooy ñi mu tudd te it mboole mbindeef yàlla yi ñoo ci gën bu yonante bi jàllee ibrahim mooy gën bu jàllee muusa bu jàllee xiisa bu xiisa jàllee nag noohun alayhi salaam door caa topp boo weesoo yonant yooyu di ulul xasmi da nga ciy teg yonante yi ca des nga xam ne amoon nañu ndigalul jottali dañu waxoon ne ñetti téeméer lañu ak fukk ñett am ñu wax ñetti téeméer ak fukk ñeent ba am ñu wax sax ñetti téeméer ak fukk juróom boo weesoo juróom ñi nga waxoon tàmbalee ci Muhammad ba agsi ci noox lim bi nga wax ñu di ay yonante amoon ndigalul jottali ñoo gën ci ñi yàlla sàkk buñ jàllee ñi yàlla wax yoon te joxu leen ndigalul jottali ñoo cee sës buñ jàllee nag yeenti malaaka yi ràññiku lool lool doo caa topp nga xam ne kon danga weesu lépp luy xeetu yonante ak lépp luy xeetu ku ñu soloo doo caa teg nag jibril bu jibril jàllee mikail mikail israfil moo ci sës asail topp ca ñoom ñeent ñooñu boo weesoo yonante yi ñoom yenti malaaka yi ñoo gën ci mbindeefi yàlla yi su xasee weesu yenti malaaka yooyu abubakari ni siddiq moo gën ci mboolem mbindeef yooyu bu jàllee omar bu jàllee ousmane su jàllee al imaamu Ali ñoom ñeent ñi nag buñ jàllee nga teg ca juróom-benn ñi nga xam ne ñoo leen fukkeel ñuy fukk ñoo xam ne yonante bi waxoon na seenu dem àjjana te booba ñu ngi dund. am na sax ñeneen ñu yonante bi wax na seen àjjana waaye nag fukk ñi daal ñoo ci gën a siiw fukk ñi nag da nga njëkkee ñeenti xulafaaw yi muy Aboubacar teg ca Omar teg ca Ousmane teg ca Ali. ñoom noonu lañu tegaloo ci gënante juróom-benn ji des nag moom ñoo yemoo képp daraja juróom-benn yi mooy Saad ibnu Abi Waqaas ak Saïd ibnu Zayd ak Talha ibnu Ubaydillah ak Abdurahman ibnu Xawf ak Az-Zubayr ibnu Awaam ak Abu Ubaydata Xaamir ibnu Abdillah ibnu al-Jarraax boo weesoo fukk ñoo ñi nga xam ne moom la yonante bi dëggaleen ci àjjana te siiwe ca ñi gënaat ci saxaaba yi mooy waa ahlu badar ña fekke woon badar ñoo gën saxaaba yi fekkiwutoon badar buñ jàllee nga teg ca ña fekke woon uxut ña fekke woon xareb uxut ñoo gën képp koo xam ne fekke woon xareb uxut ña fekke woon uxut buñ jàllee ñu teg ci ahlu bayxatir ridwaan maanaam ñi jaayante woon ak yonante bi ci joxe seen bakkan te yàlla gërëm leen ba wax ci alquran ne laqad radiyallahu anil muminina id yubayiunaka taxta shajara li yàlla ne laqad radiyallahu jooju moo tax ñu leen di tuddee ahlu bayxatiru ridwaan yonente bi da doon dem màkka ànd ak ay gaayam bëgg a xumra ji waa màkka dogale ko ne ko du nangu nga dugg ci at mii moom du nangu nga dugg yonente bi yabaloon Ousmane radiyallahu anhu ba mu demee ñu téye ko mujj far ñu dégg ne waa Makka rey nañu Ousmane yonente bi ne kon nañu jaayante ci joxe bakkan yi ci yoonu yàlla ndax kon jógunu woon ngir xeex waaye mel na ne xeex dikk na saxaaba ya jaayante woon boobee nag ba yàlla gërëm leen boo weesoo ñu fekki woon Uhud ñoom ñoo gën ci xeetu wonante bi sal gannaaw boo weesoo nag ñeent ñi wuutu woon yonante bi ak juróom-benn ñi nga xam ne bi ñu ànd ak ñoom ñooy nekk fukk ñañu dëggal ci àjjana mbaa ñoo ci gën a siiw boo leen weesoo weesu ña fekke woon Badar weesu ña fekke woon Uhud weesu ñi nga mujj a tudd léegi muy ahlu bayxati ridwaan da nga cay teg mboolem saxaaba yi ci des rek moo xam ay góor lañ moo xam ay jigéen lañ moo xam ay gone lañ moo xam ay mag lañ moo xam ay góor lañu moo xam ay jaam lañu ñooñu di ay saxaaba ñoo gën ci xeetu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ànd yonante bi moom amul dara dara li yoon ak moom bu ñoom jàllee nga war cee teg nag xeetu yonante bi ci boppam yonante bi gënee ci mboolem yonante yi noonu la xeetam bi gënee ci mboolem xeet yëpp yëpp ni alxuraan ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ñi gën ci jigéen ñi juróom lañu ka ca gën a gën ñu jàpp ni moo gën mboolem jigéen ñëpp ñëpp mooy Maryam soxna Maryam bu jàllee ka ci gënaat mooy soxna xadijatu bu soxna xadijatu jàllee soxna faatimatu az-zahra mi nekkoon di doomi ku baax ki yonent bi moo ca topp bu jàllee soxna xaaishatu door caa topp bu jàllee nag asiyatu ma doonoon soxna firxawna gëmoon yàlla gëm yonent yàlla muusa te Firawna doon ko mettital lool lool moo leen juróomeel nee nañu soxna Maryamu ak soxna Asiyatu moomu buñ demee foofee ci àjjana dañuy bokk ci waa kër yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi way wi tegalee nag moom dafa jiital soxna Maryam teg ci soxna fatimatu mi doomi yonante bi teg ci soxna aïchatu mujje soxna xadijatu waaye nee nañu wax ji gën a wóor mooy soxna xadijatu mooy jiitu soxna aïchatu door cee topp am na ku ko boole ci way ne fadlan nisa bintu imranin fa fatimatun xadijatun tuma man qad barra allahu moom nag ci way wi bi mu indee soxna Maryam da caa daal di teg soxna Fatimatu nga xam ne moom la gënal doo caa teg soxna xadijatu ak lu mën di am moom jàpp nañ ne soxna xadijatu mi yonante bi njëkk a yor mu ëpp daraja moo gën soxna xaaishatu soxna xaaisha nag bu jàllee soxna asiyatu bi ñu tuddoon léegi door caa topp bu ñu nee xeetu yonante bi moo gën ci mboolem xeet yi ñu yonante bi gënee ci mboolem yonante yi dañuy delluwaat ci la yonante bi waxalan boppam ne ñi gën ci yéen sama xeet yi mooy yéen ñi nga xam ne yéen a ma gis gëm ma baatub alxarnu day firi téeméeri at di firi ak maas kon nag yonent bi nee na yéen saxaaba yi mooy yéen ñi ma gis te gëm ma yéenay maas gi gën ci mboolem maas yi bu ngeen jàllee ña sës ca yéen bu ñooñu jàllee ña ca sësaat daldi ne afdalukum qarni tuma allazina yaluunahum tuma allazina yaluunahum bi mu ne ñi ma gis te gëm ma ñoo gën ci yéen ñëpp wax na tuma allazina yaluunahum yaari yoon Imraan ibnu Xusayn mi doon nekk nag addis bi moo sikki sàkk ba xam yett yoon la ko warante bi wax wala yaar yaar yi moom nattabli wu ko waaye ndax jàll na ba wax ko yett yoon wala déet loolu la sikki sàkk moo tax sax raway wi tudd ci aw aqrab indiwaale aw joojule kon na ngay wax ne ña gisan yorante bi te gëm ko ñoo gën ci xeetu yorante bi te wax nañ la nañu gënantee ci seen biir buñ jàllee nag ña ca topp nga xam ne gisuñu yorante bi waaye gis nañu saxaaba yi mooy gis nañu ña gis yorante bi ñoo ñoo gën bu ñoon jàllee ñi ci susaat ñi ci susaat mooy ñi nga xam ne gisuñu yorante bi gisuñu saxaaba yi waaye gis nañ ña gis saxaaba ya ña gis saxaaba ya ñoom la ñu tuddee attaabiyoona ña gisul saxaaba ya te gis ña gis saxaaba ya ñoom la ñu tuddee taabiyoon taabiyoon kon jàpp nañ ne yetti maas yooyu ñoo gën ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon ci benn benn yi mën naa am ku yéex a dikk ba bokk ci mbooloom ñetteel ma te du tee mu gën ñenn ci ña bokkoon ci mbooloom ñaareel ma ci kaw booy àtte ci benn benn yi booy àtte ci mbooloo mi nag moom ni ñu tegalee rek saxaaba yi jàllee ñu sës ci ñoom mooy ñu gisoon saxaaba ya ñoo gën buñ jàllee ña cee sësaat bokk na ci pas-pasu ahlu sunna ñu jàpp ne mbooleem saxaaba yi yëpp yëpp dañoo nekkoon ñu maandu kenn ku ne kem kàttanam yàlla may na ko maandu ci jëfe ndigal bàyyi tere ndax kenn ku ne ak fa yàlla yemale sa man-man dañuy ëppante ëppante daraja ku ci nekk rek ku maandu woon nga ku defoon kem la nga man ci sàmmoonteeg ndigal ak tere la xewoon seen diggante ci xeeti ay xare yoo xam ne ay bakkan yu bare bari daan woon na ca it buñ àggee nag ci di taalif mbaa ñuy jàngale ba àgg foo xam ne mënees te ñàkk tudd loola suñu àggee ci mën noo ñàkk wax ci loolu daal dañuy jàpp rek ne kenn ku ci ne daa am noo jàppoon ne moo gën a baax moo gën di aw yoon keneen it gisee neneen nu bokkut ak noona jëm rek ba jàmmaarloo waaye ku jàpp ne kenn ku ci nekk rek lu baax la bëggoon dogal baa ñëw rek ñu jàppante bala ca xew xew ca dafa tudd yent kilifa yi nga xam ne ñu siiw lañu ci lislaam doonoon waroomi ngir xanaa waroomi yoon yu ràññikoo ràññiku ci lislaam am ñu ca ànd ak ñoom di roy ca ñoom ne ñoom day ñeent lañu ñu nekkoon ci ak jub bu leer naññ yàlla baaxi woon leen ko buñ amee bu wutee ñàkk bokk gis-gis ci yenn masala yi itam loolu lépp yërmande la ju yàlla baaxe xeetu yonante bi ndax ñoom ñëpp buñ maase woon ci benn gis-gis ci mbir mu ne ak ni nga xam ni moom la nit ñi wuutee ak ni nga xam ne moom la béréb yi wuutee kon naa indi ay jafe-jafe yu méttee métti waaw loolu tax seen wuute googu yërmande la ci xeet wi kenn ku ne wet ga nga gën a mën rek nga féete fa du ñu wax ni sax tënku ci menn ngir day lu war ab julit mënta ñàkk wax ji wax ji gë- wax ji ñu gën a sukkandikoo mooy tënku ci menn ngir du waru gar ci ab julit waaye boo ko dee seet day mel ni waa kër sëñ Tuubaa moom day mel ne lu war la ci ñoom ndax da leen a dénk yoonu al imaamu Malik wax ne moom ci bopp muñ ko gisee muy def loo xam ne wóote naag liñ gis ci téere yi Malik yu wér yi nañ xam ne ak jagleem la ko yàlla jagleel waaye bu ko ca kenn fekk di ko ca roy fekk boobu daa am ko doon laaj ci mbirum bismillahi rahmaani rahim booy jàng faatiha ndax da nga ko waxaale am doo ko waxaale sëñ bi ne ko amma masalatul basmala fa amartukum jamian bil madhabil maliki fa in raaytumuni afalu shay'an walam amurkum bi walam tarawhu fi lkutubil malikiyati lfiqhiya faqtasiru anhu bil malikiya fa inna lii xasaa'isa laa amurukum bi an taqtadu biya fiiha alaykum bil malikiya fa innaha mutaharatun munawwara ñu far waxaale ñoom ñeent kenn ku ci ne waxtu mu feeñ ci àdduna ak waxtu mu génn àdduna ak na ak dundam tollu Abu Hanifa mi ci njëkk bi gàddaay gi amee juróom-ñett fukki at la feeñ ci àdduna bi gàddaay gi demee nag ba am téeméeri juróom fukk la génn àdduna ak dundam du war a sori juróom-ñaar fukki at al imaamu Malik bi gàddaay gi amee juróom-ñeent fukki at téeméer bi manqué fukk la feeñ ci àdduna bi gàddaay gi demee ba am téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent la génn àdduna ak dundam xëy na du war a sori juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent maanaam juróom-ñeent fukk yu manqué benn al imaamu Shaafi yi moom bis ba Abu Hanifa génne àdduna moom ca la juddu at ma mooy mee nga weesu woon muy atum téeméeril ak juróom fukk ci gàddaay gi génn àdduna ci bi gàddaay gi amee ñaari téeméer ak ñeent moom nag taxu koo gudd fan dara ndax juróom fukki at ak ñeent cinquante quatre rek la dund ci kaw suuf moom al imaamu Shafi'i yi Ahmad ibnu Hanbal nag mi ngi feeñ ci àdduna bi gàddaay gi amee téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent génn àdduna bi gàddaay gi amee ñaari téeméer ak ñeent fukk ak benn li mu dund ci at war naa toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar bu dee ci wàllu tawxiid am na ku ñuy wax al imaamul ashar yi ku siiw la ca te ñu bare bari ci fii ci sow bi moom lañu àndal ci wàllu pas-pas ba tax mu ne aw royteef la te ku ñuy jiital la bu dee ci wàllu tasawuf ku ñuy wax al imaamul junayd ku ca siiw la nee nañu sax bu tasawuf demee ba ak yoon wu ñu xàll wax ne fii la ñuy aw fii la ñuy aw ci moom la tàmbalee la ko jiitu woon tasawuf amoon na ndax tasawuf ma nga tàmbalee ci yonente bi ak saxaabaam waaye dem ba def nag aw yoon ñu koy xàll di ko xamle nag nee nañu ci aljunayd bi la tàmbalee dafa am ay xeej yàlla yoo xam ne yàlla leen baaxe ñu ragal ko dëgg-dëgg yi ragal topp ko dëgg-dëgg topp ba bu ko soobee muy feeñal ci ñoom ay mbir yu xotti baax ni yàllay feeñale ay mu'jisaat ci yonante yi ba ñu gëm leen ci coobareem noonu lay feeñale ay karamaat ay xar baax ci ay xeejam yi nga xam ne duñu ay yonante ndax nit ñi xamee ci ne diine ja ñu nekk ñoom ñu baax ñooñu diine ju wér la ju yàlla gërëm la ndax bu toon diine ju yàlla gërëm ba may ñi fi nekk may gu tol noona ci misaal mi Sëriñ Tuubaa tegtal la ci ne lislaam diine ju wér la ju bàyyi ko fa yàlla wax fi ko yàlla awale ak lam ko defal ñëpp teg ci bët tekkal la ci ne diine jim nekkoon mooy lislaam diine ju wér la ju bàyyi ko fa yàlla di diine ju yàlla gërëm lu bokkut ak moom ba bis penc ci du diine li tax mu ne xeej yi yàlla yi karaama yi yàlla feeñal ci ñoom kenn mënu koo weddi mooy la dalee ca saxaaba ya ik Abu Bakar ak Omar ca lañ tàmbali woon a gis yàlla feeñal ci ñoom ay karaama yu xotti baax mu yooyu rek nag ci xeej yàlla yi mooy lu ñu teg bët kenn mënu koo weddi